خسفت بناء الميت بالحق مانعا لفرد ولا خلق ولا نويت دوام الذكر والسر خالقا لخير الورى لمن حسين المزين نبي رسول خير عبد وسيد خليل حبيب لي liñ fi woote yëpp daal ñëw na ñu ngi ñu gunge bu baax a baax di indi xalaat yu rafet te day am yoo xam ne day encouragé nit daal. aleykum wa rahmatullahi mbokk yi ñu ngi leen di di leen ziar bu baax a baax. di sant ñi doon def waxtaan yi macha allah waxtaan yi am na solo xam naa li ma ci bëggoon a dolli daanaka sëñ Abdoulaye sëñ Alaaji da ci dugg ci lu bari ñu ngi sant euh, sëñ daam ci initiative bi waaye nag euh, yaakaar naa ñi fi toog ñëpp ay lañ te dafa mel ne mbir mi dafa toll foo xam ne léegi-léegi nag ñi buñ bëggee mu baax du ku ñu wax ñu ne iskay rek mu jaar jeex am ngi dem bu fekkee bëgg nañoo defar euh, xam nga Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu dafa wax ne karaamati xattu yaddi maanaam kii maanaam yëpp mi ngi ci lim bind léegi dafa mel ne initiative bi suñ demam mooy xam Sëriñ Tuubaa jot na kon nekk ñun danoo dem ba yëg ne am na lu ñu xamagul loolu lay tekki de ginnaaw jot na la wax am na lu ñu xamagul ginnaaw liñ koy mën a xamee nag ci làmmiñ lay jaar dafa am ñu ciy wax ñu leen di déglu mooy ñi yàlla wërsëgal ñu dem ci télévision yi walla ñu dem ci rajo yi di wax ci sëriñ Touba boo gisee sëñ Alaaji Sàng di wax di xew ci net bi man daanaka décision boobu laa ci jël bu ma doon lire 50 pour cent léegi maa ngi ci 10 pour cent parce am na yoo xam ne da koy dégg léeg-léeg mu naqar la lool ah, ñi ay xale yu ndaw yoo xam ne firiñ ijji comme man mais di fopp kilifa wala yi la di teg ci kàddoom yu ñaaw yoo xam ne doo jàpp ne sax Sénégal maanaam seen jikko bu ñaaw egg si na foofu waaye léeg-léeg nag day jóge ci waxtaankat yi waxtaankat yi léegi léeg ci siinu yëg ak fi ñuy toll léeg-léeg ñooy yox ba tuuse te duñ ko yëg kay kay kay corriger bu demee du corriger kiy jàng de saa mu jël responsabilité jox ko ki doon wax def ci erreur parce que it kuy wax yaay def erreur nag nit ki moom xam-xam bi mën naa bari lool gëm gi Sëñ Tuubaa mën naa bari lool ndax xam ne loo xam ne ni ki ñuy waxe ak ni muy waxe da ngay xam ne kii Sëñ Tuubaa dëgg mën na ci moom waaye nag nay nangu ne itam li muy wax bu mu jeexee bu mu mën a waat ne cent pour cent yi ma doon wax yëpp normal na xëy na benn mën na caa yàqu wala ñaar mën na caa yàqu ñaar yooyu ci yàqu wala benn léeg-léeg ci la nit di sukkandiku wax lu ko neex waaw lu tax léegi bu Balla Sylla waxee tey jii loo xam ne dafa juunu yow mënu ko adressé na kii li wax waaye da ko fay romb de dem ci sëriñam kon léegi mel na ne léegi li tax ñu dem ba ci sëñ bi mu ngi sababoo ci man parce que maa wax loo xam ne nii waruma koo na wax te itam dafa bari ci waxtaankat maanaam nit ki bu waree dem ci télévision wala mu wax dem ci rajo maanaam balaa dem li muy war a waxtaane nak na na ko toog wax ko ci xelam ba noppi ba bañ caa wax benn baat boo xam ne nii maanaam day tax ñu mën a tuuse Sëriñ Tuubaa maanaam mu war ko maanaam yegg ci moom foo xam ne yow yaa ko sabab te yëgoo ko te pourtant yow taalibe Sëriñ Tuubaa de ku gëm Sëriñ Tuubaa de waaye ci biir wax bi yaa saagalu sëñ bi te yëgoo ko kon nag loolu ñi ngi encouragé ñi nga xam ñi ngi dem ci télévision yi di dem ci rajo yi surtout suñu bokk yi macha allah ñi ngi leen di seetaan parce que nit yi boo ko du seetaan euh, maanaam daf laa sëfut kon léegi boo ko dee seetaan la muy wax dafa laa ñor ba da ngay tiit balaa noppi da nga ay ay waay kii de yàlla yàlla na ko yàlla dimbale ba mu eggale ci waxtaan wi ci anam bii mu ko commencé ba nga erreur du ci am donte nag loolu dina ci am lu tuut tuut rek laa bëgg wane ne ñi nga xam ne ñooy waxtaan ci euh, ci lu mel nii maanaam ñuy nangu itam di critiquer lu mel nii sëñ daam def itam maanaam bu ñu ñit ñu toogee itam bu comme ni ma ko waxee léegi lu lu waaye wax ñun iskay mu dem mais buñ ci luñ ca war a mën a jubbanti dañ koy jubbanti ci suñu biir ba boo léegi nit ki bu toogee di wax tey wax sëñ Tuubaa sa xel mën a dal bu baax a baax kon maa ngi jégalu loolu rek laa ci bëggoon sànni wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku ci ne ci turam ak santam di lu du di lu initiative bi bu baax a baax a baax ndax sénégalais lom sénégalais moo bëgg programme il faut que mu nekk ci programme dana nekk ci làmb ji. mbaa mu nekk ci football bi mbaa mu nekk ci course bi kon nag ñun ñi xam ne ay doomi daara lañu dañoo war a nekk ci daara te lii daara la ndax li ngeen doon wax léegi ci alxuraan ji man daf ma yëngël tax mu yëngal ma mooy fii rek da koo wane fii genn wàll gi mokk lañ alxuraan mën nañ koo tari fii ci jataay bi képp rek ñu ci bëri mokk lañ alxuraan seen doom mokk lañ alxuraan loolu day wane ni Sëñ Tuubaa moom moom alxuraan kon ñu ngi sant bu baax ñi koy jàngale ku mel ni sëñ alaaj njaay mii jàmbaar la lool ci yoon wi lu ne dana ko def ak sëñ Mame Balla Sylla ak ñi fi daje ñëpp di leen sant nag bu baax a baax baax di sant sëñ Omar Diop sëñ Omar Diop ku baax la ñu bari xamuñu ko bi muy ñëw njaareem di jàng sa fekk na ma am bac wala befem am na lu mu ci am ba pare ne ko ñëw ca daara jàng alxuraan mokkal dem dem doog àggale ci tubaabam ñu bëri xamuñu woon loolu ci moom bi ñëw njaareem boo fekk na ma am xaw ma befem la am xaw ma waaye am na lu ci am ne ko fa ñukk ñëw jàng si alxaar bu mokkal doo a dem àggale ji tu tubaabam loolu pësteef bu mat sëkk la yàlla na ko yàlla jàppale tey itam jataay bii ñu fi bëri moo leen fi indi ku mel sëñ Saliou sàmm mii ak sëñ Bassirou Gaye ñu leen di sant bu baax seen teewaay ak sëñ Thierno Mouride ndax dafa jot sëkk nit ñi xam sëñ Touba te wàññi complexe bi ñun murid yi léegi xawma lu nu dal mu njëkk da nga daan am benn murid am juróom fukki góor léegi da ngay am juróom fukki murid doo benn góor sax loolu war na koo xoolaat lu mu doon foofu la jamono toll il faut que ñu nekk ay murid yu am pësteef yu am yu amut benn complexe te léegi bi dafa bëri torop torop ak xel wu metti wi ñuy daw il faut ñu wàññi xel wi xel wi ñuy daw lan la mag ñi ñu selloon la woon ñu sell lañu woonoon jàngale alxuraan am pësteef nekk ca ñoom ñoo ñu formé ñun ñii nag ku ñuy formé boo muy tuut mel ni ñu war a mel parce que kenn amul jot ku ne yaa ngi ci xel woo xam li ngay dàq xamoo lu mu doon te doo ko jàpp il faut ñu wàññi xelu wu metti wi tey itam yàlla dimbale nun waaye nun dimbale wuñu suñu bopp ku ci ne ci ñun defar nga kër goo xam ne fii ak fanweeri at du yàqu wóor na leen ni danga koy defataatal waaye yàq moom du ko def am nga dépasse boo xam ne mën ngaa toog ba déwén di joxee dépasse doo xëy te teewut sa bopp baa ngi tàng jéer li tàngal seen bopp lu mu doon il faut il faut que ñu ñëwaat sur terre il faut ñu ñëwaat parce que fi ñu nekk la ñu war a nekk lu bëree bëree bëri li ko lu bëree bëree bëri lu yàqu rek loolu moo ko yàq xel wu metti ñuy daw te xamul ni ñu daw lu mu doon lu bëri moo ko yàq kon nag daam ñu ngi lay ñu ñu ngi lay ñu ngi lay sant bu baax ci initiative bi baax na lool ndax il faut nit ñi il faut nit ñi nekk ci dara te lii lu baax a baax la yàlla nañ ci yàlla dimbale démb rek damay waxtaan ak benn waaye mu ne ma moom léegi daa choisir rek def lu baax ndax lu baax bëriwul concurrence nee na doo am doo am wujj mukk waa xatut lu baax moom du xat lu baax du xat il faut ñëpp daw daw daw dem ci lu baax ñu leen di sant bu baax a baax ci taxawaay sëñ maam Balla Sylla li nga wax sëñ maam Balla Sylla li nga am na solo trop li nga wax am na solo trop il faut que ñu xam sëñ Touba mooy kan. benn bi mooy alxuraan ni ngeen ko waxee Bassirou Gueye mi nii la noonu la war a mën a mel man mi ko xam xam man mi xam baayam fukki at ak juróom def naa ko njaareem fa laa daan njànge baayam lu baax loo def na ko. daari kaamil ña muy wax fi mu toll bàyyi ma jiite daari kaamil ji kon moom nii rek la nii rek la war a mel sëñ Saliou Samb yéen yéen nga wane sëriñ bi fu ne. yàlla na yàlla dimbale te dimbale mbooloo mépp te itam ñun ñëpp yàlla nañu gudd fan yàlla nañu wér yàlla nañu nekk ay jullit xàqan nekk murid saadix benn waaye dama wax bu yàggul rek dama ne ko mooy bàyyi Abdou Baaxe Mbay moomu dama ne ko Abdou Baaxe de gone gu yaru la gone bëgg jàkka la mu ne ma moom ab murid la ab murid mooy borom lislaam ju sell ab murid mooy borom lislaam ju sell ab murid noon la war a mel détails yi nit ñuy wax man damaa am fula ju toll ni du ma du ma dégg lu ma naqari damay lànk lu man man man man dama am fulla ci loolu lu loo xam ne bu ma ko dégloo mu naqari ma rek du ma ko déglu ko du ma romb benn vidéo bu ma xoolee titre bi rek damay jàll benn bi mooy téléphone yi ni mu jëlee suñu temps ñun ñëpp ëpp na wàññi mi wàññi na njàngum yi benn waaye damaa wax barki démb sànni rek mu toog mu ne ma place yi doxatu ma place yi mooy da ngeen daan koy jàng alxuraan jàng xasida waaye téléphone ci ngay nekk ba ngoon plage du dox il faut ngeen fi jàng alxuraan def jàng xasida plage yi mën dox yàlla ñu defal jàmm defal nu xéewal ñu ngi lay encouragé ci lii wasalaamaaleykum wa wa barakaatu suma li daarin sana waxat awa kulla muna min waasabal ana wa jalibaati niqami nixma nabiyin wa rasul nixma lazi jaada bi lana bi rabbil jamil min zikri wa laqami ayatu ta ahmada la tatanasar mada wa natqu waasawil huda an xatiha bil xalami arsala wallahu ila kulil wara murattila zikran allahi unzila huddan li zi taallumi أكرم بذلك الكتاب في وضع والثواب في الخطاب والجواب من ربنا ذي الخدم والشفاء من كل داء لمن عليه اختمد ومن حبى اضطر ذا حسرة والندم وكل شخص على الغدا في ولم يجتهد بتوبة لا خرج من ربه المنتقم والذي من اقتدى بهدينا للهدى ويحتوي الفوز حدا ذا قسمة من نقم وهو الكتاب المبين جاء به ندب الأمين بإذن رب العالمين حدا النواوي الأخومي wax wala si man adbara anu wa ma tadabbara fi asara balwara udukatan lilluwami wa wala si man sabata fi walam yaltafita za aman lin yakun fata inda shakuri lakrami wa wala si man iktafa bi tama qad kafa wala yulaqi kulla fa zawil azabil karami ahmadu ala kitaabi lazi ala kulla kitaabi nuzila bi kalkali wa bil fami barke borom ngir jot sunu ay vidéo di ngeen di fii ci seen chaîne YouTube Tawfekh Production ngir bës cloche bi bokk ci programme bi national international